نفسا بالغاد أتيت به لزاد سكريايا voilà mbokk yi seetaan euh, seen télévision Khass TV tey nag euh, ñi ngi fii ci euh, Malika ci kër Abdoulaye Diop Khass ki nga xam ni genn wàllam la léppam la ñu xam ko ci li nga xam ni rek mooy yoonu murit waaye ku dégg baat bi tamit xam ni euh, tàggatu ki nga xam ni waa Kër tubaa la rawatina ki nga xam ni mooy Serigne Saliou Mbacké Mouhamed ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax di nuyu waa Xaas TV. Mouhamed euh, tey euh, maanaam ñi ngi jëm ci 18 safar maanaam daanaka ñeenti fan moo ci des tey lan ngay maanaam dénk mbokku taalibe yi ginnaaw bi nga xamee ni ñu ngi jubal bésub Sëñ tubaa bu mag bi waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Serigne Touba moo yenent bi. sallallahu alayhi wa euh, ndigal li nga xam ni moom la ci Serigne Mountakha di ko ñaanal bu yàgg fi téye lim ci joxe rek te wax ko ci noonu képp la ñuy doxee noonu la ñuy ànd moom. te ndigal loolu yi mooy ndigalu ki woote màggal gi te ni mu ko wootee defe naa léegi kenn du ko jàngal kenn mooy li ko dalee ci ginaar ba ci gileem lu ci waay man na ko def ngir santale ko sunu borom loolu defe naa murit bu ne. léegi loolu nekkatul ñu lay jàngal. Euh, ci li nga xam ni moo jëm ci euh, waajtaayu màggal gi ñu ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu si ak jàmm ñu fekk ak jàmm dem si ak jàmm ngir santale ko waaye tamit ngir màggale ko borom bés bi ci Serigne Touba Khadim Rasoul euh, nga génn ci benn album boo xam ne ji ñaa ngi àddina sori na la nan nga mën a yàggee mbokki taalibe yi rawatina ñi lay seetaan ci album bu bees boobu nga xam ni daanaka ab yóbbal la. waaw macha allah maa ngi lay ni félicité d'abord yéen presse bi rawatina yéen yow mii nga xam ni keroog bi ñu def point bi yaa ngi fa woon ngeen liggéey ci liggéey bu am solo euh, vraiment am nañ ci mbégte ndax fii mu ne nii album bi à travers de mondes ñëpp ñu ngi koy jënd sur internet te loolu bu buñ ko mënee am liggéey ngeen ci liggéey bu bu bu rafet ba tax na ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi wax ñëpp ñi nga xam ni amaguñ ci nañ ko wuti ndax yombal nañ ko ci ñëpp def nañ ko ci internet bi def nañ ko ci ay CD def nañ ko ci ay clé. mu mel ni Mouhamed euh, dafa ñëwaat ci beneen melokaan ci beneen facette ci maanaam baat bi ak mélodie yi mu nekk loo xam ne daal dañu mel ni Mouhamed daal am na fu mu jëm. waaw xam nga maa ngi wax ne album bi maa ngi ko tuddee àdduna bi sori na la te ñu nangoo ko ci làmmiñu Serigne Saliou Mbacké àdduna mënee su koo dab mënee su koo dox ba laal ko. waaye da ngay jéem a mel luy ànd ak moom mel loolu ñu jéem a mel luy ànd ak àdduna moo waral fépp fu jamono toll dañuy jéem a ànd ak jamono loolu moo waral bii yoon ñu jëluñu rek way sànni ko ci YouTube bi comme niñ daan def bu njëkk waaye nag bii yoon dañ ko yóbbu ci plateforme yi ngir kat fexe mu gën a yomb ci nit ñi waaw euh, Mouhamed for nañ ci wuyu béy yaa ngi waajal Bercy loolu moom <laughs> information de taille waaw incha allah ñu ngi koy waajal bu baax te dem fa it du dara dara yóbbuwuñu lu dul sant ci Serigne Saliou waaw ànd kook nag sëñ Ablaye Diop xaas mii waaw ak sëriñ Serigne Medoune Sey borom taw feex ak gaañu baax waaye moom mii bis boobu buñ ci yeggee ñoo ñëpp xam ne parrain la ci te it ci ñi ñi ñi ñi ñi gàddu bis bi ci lay bokk. ku wax màggal di nga wax dem beeg dikk bi lañ ngay dénk mboolu mbokk taalibe yi rawatina sofóor si. waaw xanaa ñu dal rek waaw dal kenn ku ci ne na nga jël ndigalu sëñ fàll googu rek dëgtal boobu nga def ko ci sa bopp. boo ko defee rek di nga dem ci jàmm dikk ci jàmm te dara du la dal. jërëjëf Mouhamed ñu ngi lay ñaanal magal ak jàmm. ñu ngi lay fay jërëjëf bëri kontaan. بالغاد أتيت بي لزاد بسكريا يا